asalaamaaleykum gars yi naa leen daleen ak jaamu ci Sen Sport 221 Argentine dal dinay qualifié ci demi-finale yi gannaaw bi mu dóoree pays ci li nga xam ne mooy série tir au but ñetti bal ci ñeent ndax kan ñi nga xamante ñoo di Argentine dañoo jiitu ci jongante googu ñaari bal ci dara ki nga xam ne mooy Messi moo njëkk a jox ci trente-cinquième minute bi ñu dawalee ba soixante ñu daal di dugal beneen mën nañu wax ne daanaka sept minutes wala boog euh, quinze minutes presque moo desoon ci match bi ñoom Argentine dal di waaye nag ñu gis ñi nga xamante ñoo di Pays-Bas di def changement ki nga xamante ne mooy Weghorst daal dugg daal amal ab doublé ci diir bu gàtt ci sept minutes mën nañu wax loolu ndax bi match bi desee sept minutes ci la marqué li nga xamante mooy bit bu njëkk bi bi ñu demee ci li nga xam ne mu daal dugal beneen bal loolu moo leen yóbbu ci li nga xam ne mooy prolongation deux deux bi partout ñu dem ci li nga xam ne mooy série tiro biti voilà foofu nag fa la mbir mi daal di xewee ki nga xamante ne mooy Emiliano Martinez di gardien bu Argentine bi daal di jàpp ñaari bal yoo xam ne ñi di waa Pays-Bas daal dinañu koy dóor Pays-Bas nag kenn euh, Argentine kenn moo daal di raté ci ñoom voilà waaye ñi ci des ñëpp dañoo marqué kon 4 bi à 3 noonu daal di jeexee ci série tiro biti yooyu la bi ñu ñëwee nag ci li nga xamante ne mooy lii di affiche wu demi-finale bi léegi taxaw na diggante ñi nga xamante ne ñoo di Argentine lay doon ak Croatie voilà LM 10 euh, lay doon contre LM 10 Lionel Messi ak Luka Modric muy ñaari numéro 10 yi nga xamante ne ñoom ñaar lenyu, ay capitaine lañu voilà ci seeni dëkk ñoom ñoo war a ci li nga benn demi final bi ci talaata ji lay doon bu juróom ñaari waxtu ci ngoon jotee Argentine ak ñi di waa Croatie ñu fàttali leen nag Croatie du ñeexu ñebbe ndax gis fi mu jaar ak Brazil, ak Brésil fa la jaaroon ak Argentine te gis ngeen coupe du monde bale la doon def ba yegg ci final ba bi nak mu war a Messi bi nga xamante mom moom dafa jàpp ni bii mooy sànni tàccu bi te mu ànd ak forme bu jéggi dayoo ndax gis nañu Messi mën nañu wax ne match yi Argentine mu joué parce que leen ci génné surtout bu tay bi nga xamanteni bit bu ñëk bi moko joxé ñaaral bi moko dal di dugal voilà kon man nañu gis né dal dafa né ci forme ñom ñaar ño wara a kon mat bu neex lay doon ci talata ji comme niñ leen ko waxé bu juroom ñaari waxtu ci ngoon suba nak dinañu wëyel quart de finale yi ñun afrique dinañu janoo ak wa portugal manam maroc maroc mo fa dess afrika ño wara a ak ñi di portugal bu ñetti waxtu jotee lay doon jogante gogu dina am solo lool te japp nañu né amana maroc warna am chance sax ngir wat ci mëna genn ba dem ci li nga xamanteni moy demi finale pour la première fois ñu wara am équipe bu afrique ci li nga xamanteni moy demi finale coupe du monde ñong koy séentu su balay doon bo ñetti waxtu jotté digënté Maroc ak Portugal England warajano jëno ak France voilà Angleterre gi nga xamné mo éliminer Sénégal ñi de France lañ wara jëno France gi nga xamné dafa bokk ci favori ta momo kat mom mo gagné won coupe du monde bi nga xamné wessu nañu ko kon match bobu dina am solo mom bu juroom ñaari waxtu ci ngoon jotté lay doon gannaaw lolu ki nga xamné nak moy Tite mo doon tagat équipe nationale bu Brésil dal dinaay tekki ndoma tànkam démissioné na voilà comme ni nga xamné ni la ko ay naataangoom défé rek ci fan yi wessu ndax bu ngeen sélo nak coupe du monde bi danaka équipe européen yi wala tubaab yi ci bari bok biñu ñu seen

xamne moy Luis Diaz bi nga xamne dafa blessé won ba commencé won tan tané won na sax dé ba and ak équipe bi dem ci Dubai di wajal sen bop wala ci li nga xamanteni moy saison bi nga xamne warna dorat ay fan ci kanam wala ay semaine bok ci kanam légui nak ki nga xamanteni moy Luis Diaz dafa amat gañu gañu manam gañu gañu ba dafa delu ci tané won na ba commencé entraîner waye nak nenañu gañu gañu ba dafa yew wat ba fimné ni dal dina tak i bagasam delu wat na Angleterre kon lool nak yakana xibaar la bo xamne neexul ben yoon ci fans Liverpool yi kon Luis Diaz bi nga xamanteni manki wona Liverpool lool tamu feñ sax ci sen match yu mujjii wala ci ñi doon sentu mu amal lool dégg nga maam ab retour ci li nga xamante ne mooy ndorteeli saison bii maanaam bu ñu reprendre fi mu ne mën nañu wax ne loolu nag amaana dinañ ko aj ba jëme jamono ndax jamono yi ñuy wax ak yéen danañu delluwaat na Angleterre bàyyi ay coéquipier am foofu lee ca dégg nga Dubaay tënk la woon ci xibaar gars yi continuer leen di siiwal di di partager